ginnaaw coalition Atel coalition Diomaye aussi moom it euh, jamono ji ñu ngi fay nemmeeku voilà ay problème yu ñu fay daal di euh, signaler ci groupe WhatsApp bi nga xamante ni jamono ji ñu nga cay dut baaxam tuuma ay dëmbooj ñoo defa daal di retiré lépp euh, téeméeri nit ca naka noonu ñenn ci membre yi nag ne ay dëmbooj moo daal di def lu nu mel mu mel ni daal Euh, coalition Diomaye ci élection législative yi ñu dëtmal ñu war a booloo déggoo war a am ci seen biir waaye mu mel ni jamono ji dañ fay nemmeeku ay jafe-jafe yu yu ndaw a ndaw am amina jaar euh, mbir moom c'est pas le moment mm-hmm. instant bi moment wu euh, li nga xamante ne moo di troupe bi la mais moment bokk li nga xamante ne moo di bloc la mm-hmm. parce que dañu jëm ci ay élections législatives yoo xamante ne mën naa ne yàggatul dara donc jamono jii li ñu war a def mooy booloo xool nan la ñuy amee li nga xamante ne mooy di majorité ci assemblée nationale ngir mën a yombal ngir mën a yombal liggéey ki nga xamante ne mooy jiite réew mi parce que coalition moom en général booy seetlu yii da ciy faral di am parce que bu nga xam fekkante ne parti bi la ñi ci ne ci parti bi la plupart du temps ñëpp ñëpp xamante ne am ñeneen ñoo xam ne doo ñëw rax leen la plupart du temps ñoom indi problème yi et pour man problème bi nga xamante ne moo am au sein de la coalition yàgg nañ koo dégg am na ci ñoo xamante ne quitté nañ am na ci ñoo xamante ne frustration mm-hmm. dafa am donc yooyu yëpp war nañ ko régler à préalable ba du répercuté waat ci li nga xamante ne mooy di seen biir coalition boobu ndaxte xam nga gis nga ko opposition bi naam sax amuñu chance bu bëri euh, pour am majorité assemblée mais n'empêche que ñu ngi jéem a xool lu ñuy defee bloc ngir euh, compte ngir li nga xamante ne moo di nguur gi ngir ñu am force boo xamante ne dinañu mën a bloquer nguur gi naam sax leer na leen ne ña dajale woon ci coalition boobu yëpp amul ci kenn koo xamante ne ni mën ngaa teree nelaw nguur gi wala amul ci kenn koo xamante ne nii am nga poids bu mag mag boo xamante ne boo ko pesee mën nga nasaxal nguur gi mais ba tey waruñu naagu parce que dañuy faral wax naan politique dafa doy waar et politique euh, dafay nekk ay mbir yoo xam ne parfois euh, loo mustu xalaat mën na am donc bu ñu naagu wala bu ñu yaakaar ne rek peut-être ñoom instant bii nii euh, ñoo nekk au top wala ñuy favori ba tax ñuy bàyyi yenn mbir yi muy daal di naka sax parce que mën na répercuter waat ci li nga xamante ne moo di seen liggéey moo tax daal ma ne bu fekkente ne dafa am problème boo xamante ne am na seen biir wala yu sew sewaan yooyu ñuy xalaat nañ ko régler une bonne fois pour tout. Mhm. Mm-hmm. donc ñenn ñi jàpp ne euh, xam nga xam nga la plupart du temps dañuy seetlu ne ay élection bu jub see jaara ñu gis parti boo xamante ne ku nekk gis nga sa bopp ci parti boobu danga naan tey ji coalition bii lay àndal. mais mm-hmm. bu ñu demee ba ci biir da nga gis ne après yeneen problème dafay judduwaat. Mm-hmm. ci boobule euh, coalition moo tax may faral di wax naan ñoom ñi nga xamante ne ñooy politiciens wala ñenn ci politiciens dañuy faral di ànd ànd boo xamante ne. ànd dëgg la wala ànd boo xam ne ànd principe la. Mhm. parce que bu fekkante ne man dama gis jaara ma topp jaara. ndax rafetaay bi wala ma jopp topp jaar ndax alal gi nga xamante ne daf ma koy jox wala ma topp jaara pour ëllëg bu amee dara ma am ko boo demee ba loolu gisatoo ko fa amin yow jaara doo fa toog da ngay dem mm-hmm. parce que da nga naan intérêt boobu nga xam moo fa tegoon nekku fa damay daal di dem moo tax daal may faral di wax naan nañu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne moo di seen taxawaay ñu bañ di ànd ànd par circonstance mais di ànd ak nit ci principe parce que boo ànd ak nit ci principe àla kulli xaal xëy na bu demee ba àndatoo ak moom principe ba mooy tax nga romb ko waaye doo ko romb ndax la nga fa doon séentu amoo ko amoo ko fa foot mu mel ni daal euh, jafe-jafe euh, am na ci biir coalition bi le xam nga yenn saa yi jaara mm-hmm. groupe whatsapp yi yenn saa yi dañuy nekk ay source ay source wu problème mm-hmm. ci ci biir groupe whatsapp yooyu leen génn xoolal ci parti politico ci famille ba ci groupe whatsapp famille <laughs> yéen ñëpp ne ngeen si ay groupe whatsapp mm-hmm. groupe whatsapp service am na yoo xam ne quitté nañ te ñu ngi ci biir service bi. Mhm. parce que doomu aadama surtout ñun Afrique rawatina Sénégal nii la ñu yàlla bindee. Mhm. yow mënoo nekk ci coalition ba pare jaar mais saa su ne nga dugal ci loo xamante ni mi mi mi luy décourager luy salfaañee ñi nga àndal. Mhm. mais loolu bàyyi. la coalition mu jeex bu ñu waxee ñu ne non suñu xalaat la wax xam nga coalition politique dafa am ay sart yoo xam ne ñoom ñoo koy lal nit ñi ci lii lañuy ànde mais yaa ngi nekk ci biir mouvance présidentielle ba pare nga ne tu soutiens le duo Ousmane Diomaye mais suba ngoon guddeeg ba bëccëg yaa ngay xuloo non ñun waxuñu woon lii gars yi non non non non ñun kay gars yi sa waay ñun suñu yaakaar dafa commencé tas seen yaakaar tasul de yow la sa yaakaar commencé tas. Mm-hmm. Ousmane Sonko premier ministre am lu mu waxoon ca Mbour man moo tax yu bëree bëri ci lii du ma bett képp ku jàpp ne mbir mi affaire u pàccoo la bis bu ñu gañee ñu bëree baree bëri ils seront non seulement surpris mais déçus nañ am leen naqari. coalition Diomaye nan lañ ko créé. coalition Diomaye président laay laaj man nan lañ ko créé léegi-léegi damay jékki-jékki dégg ay nit ñu ne ñun ñooy membre fondateur yi ñun ñoo ñun ñoo et yàlla dogal na ne ñaari kilifa boobu mu ngi fekk caabi mu ngi leen féete ginnaaw. quatre-vingt-dix pour cent wu ñu wax ne ñoom ñoo nekk la conférence des leaders de Diomaye président. nan lañ intégrer la coalition Ahmed mooy Diomaye Diomaye mooy mm-hmm. def tableau mm-hmm. mooy Diomaye Diomaye mooy Ngala def tableau yor sa benn mouvement sa waa sa koñ ak ñoo xam ni ba ci élection député yi mujj mais il soutenait Macky Sall am na ñoo xam ni fii ci Guédiawaye lañ dëkk tey boo leen xoolee dañuy def impression que ni waaye man maay cordonateur man maay kii euh, chargé de kii euh, jomaay président au niveau du département yow ba à quinze jours de l'élection mhm. mosoo leen jàppale. nga mhm. gis composition bi affaire bi leer nga xam ne affaire bi fii la jëm loolu la ñuy tuddee tekkal. burux lu anticipé. loolu mooy burux lu anticipé. Mhm. a jamais cru au projet. Mhm. t'as jamais cru à Ousmane Sonko au contraire tu l'as toujours insulté. nga ne am na ñu nekk bitim réew la daj ci falilu ñii ay leader yu nekk ci biir coalition Diomaye dajuñu génn wàll mhm. mais tey boo xoolee ñoom ñooy def comme am légitimité wu ñin ñoo ko fal gis nga ñii ñoom yàlla dafa def euh, fi ñu toll nii nii nii nii nii nii ñii soxlaatuñ coalition gis nga affaire bi vent la seetlu li ma la wax la leer bindal téere élection présidentielle bu jàllee de forte chance ñi gagné danoo gagné député yi danoo gagné local yi ca topp ca deuxième mandat ba danoo gagné waat nit defagu fi benn mandat. léegi nag ca local ba ca topp ñu commencé di am ay gàllankoor ndax yor nguur réalité pouvoir promesse dafa diis mënoo satisfaire ñëpp ñenn ñi commencé waaye yow man de gaañ saa yi dama ko waxee ñenn ñi xaar cinq ans sept ans parce que ñëpp ñoo dugg